Abdoulaye Dieng directeur exécutif Unacois Yessal ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen euh, monsieur Dieng ñu waxtaanee donc tey nga doon acteur bi acteur donc ci secteur bi sax laa mën a wax ñu gis li fi xew jamono ji muy ay euh, boisson yi ñuy jaay nee nañu alcool am na ci biir te ndaw yi ñoo koy gën di jëfandikoo ñu ne commerçant yi ñoom lañ joxoñ baaraam tuuma tey ji lan moo ci sa xalaat. d'abord jëf ju ñaaw la di importer produit yoo xam ne nii posen la di gaañ nit ñi rawatina ndaw ñi nga xam ne dañu néew doole ci xel ci kàttan mm-hmm. donc loolu rafetul déli te ñun condamné nañ ko fermement te maa ngi wax ci turu inaa ko yeesal tey ñu ne yéen la commerçant yi xam nga bu ne yéen la commerçant commerçant moom commerçant la waaye du ñun kenn ci ñun amul euh, joxuñu ko euh, maanaam kenn ci ñun nekkul responsable du du ngeen ko dégg mukk ci àdduna waaye nag bu ñu commerçant commerçant dafa dafa vaste am na ñu nekk ci ñun am na ñu nekk yeneen kuréel. Mhm. mais damay expliquer ne bu ñu commerçant ma xam ne commerçant yu bon xol lañ commerçant yu ñàkk yu ñàkk lañ commerçant yoo xam ne ni li def délit la. Mhm. hors la loi te yoon dafa war a appliquer ci seen kaw. Mhm. ñu dégg la yow nga joxoon ci baram tuuma euh, non dama bëgg wane ne euh, lu dugg ci réew mi jaar na ci frontière frontière am na ñu fa nekk ñoo xam dañ leen ko dénk. Mhm. muy du du nit ku nekk war naa dugg ci réew mi waaye bu nekk mën naa dugg ci réew mi bu ñu nee douane douane mi ngi ci frontière suuf si di frontière géej gi di frontière jaww ji muy aéroport alors su amee nag ñoo am nañ ci responsabilité parce que police douane gendarmerie euh, ñoom ñëpp dañ leen formé ngir ñu assurer suñu sécurité ku nekk ci wàll wa nga féete. Mhm. waaye euh, rafetul loolu ñu koy seetaan ba dugg ci réew tey euh, li ni mel mu mel ni dafa euh, gën a andiwaat waxtaan gi ñuy wax ne suñuy frontière euh, dugg fee génn fii boo mayul mën nga ko def te kenn du la gis kenn du la kii ci wàllum contrôle ndax loolu firndeel ne état am na ay limites. état boo bu amee limite tam ci moom la parce que état dafa war a fort ndax suñu impôt lañ koy jox di ko jox suñu taxe di ko jox suñu douane donc jumtukaay yëpp lañ teg seen loxo ala kulli àllin lu mel ni su amee ñoo am nañ ci responsabilité bu rëy a rëy te loolu man damay wax ne responsabilité partagée la ki wax commerçant la mu def loolu def na délit bu rëy boo xam ne na yoon tegu ci ko waa état aussi am na ci responsabilité ci wàllu manquement. et justement ci euh, li nga xam ne mooy responsabilité commerçant bi tey yéen lan ngeen ci namm pour mu doon exemple. non non d'abord dañ koy condamné donc ñun suñu wàll bopp ànduñ ci commerçant bi aussi bi def loolu ka ko importer ak ka koy distribuer bu leen yoon jàppee na na def li ci war ñun duñ ci intervenir parce que ku def délit yoon dafa war a tegu sa kaw donc ñun digluñu kenn koo xam ne ni war naa def lu ni mel ànduñu yow euh, te te dañuy ànd ak sax état bi xeex la. ñu bëggoon a xam un peu chaîne de contrôle euh, nan lay demee. non c'est-à-dire ñun chaîne de contrôle mënuñu ko xam parce que yoruñu contrôle ñun chaîne d'importation lañ xam. waa bu bi ngeen produit boo mhm. bëgg importer war nga am autorisation ci ministère ne da nga importer produit alimentaire. Mhm. ñu war ko consommer ministère aussi am na laboratoire boo xam ne ni lu fi dugg dañ ko war saytu xool ko ba mu baax balaa ñuy ndigal mu dugg ci réew mi nit ñi di ko consommer donc loolu d'une manière générale ñun lu tey monsieur Dieng gis nañ ne bëri na li ñuy ñaxtu ay produits yi ñu fiy gis yenn saa ñu ne dafa périmé yenn saa ñu ne baaxul ñun ndax ñun ñi nga xam ne ñooy consommateurs yi am nañu euh, kaaraange gu doy. loolu moom bu dee faral di am danañ danañ confirmer ne sécurité alimentaire amul ci réew mi parce que bu bu jamono yële waxoon nañ ci mbirum yàpp mu fi dugg te jaarul ci yoon hmm. lii ñu wax ko kon lu mel noonu su amee. Euh, ñun war nañu tiit en tant que consommateur buñ paree pour ñu xool ku dul état état rek la ñu xool parce que moom moo yor responsabilité suñu suñu kii moo yor suñu sécurité dañu war a lekk muy war a jóge bitim réew surtout donc war am laboratoire buy saytu loolu joxe avis favorable balaa ko mu dugg ci réew mi ñu koy jaay. Mm-hmm. tey jii ngeen ngeen nan taxawaayu ministère du commerce bi doon seen tutelle. ministère du commerce euh, am na lu rôle bu bu mu war a joué ci wàllu mais ak yeneen dossiers yu ñu seq moom maa ngi dèjà leen di war nañu dajeek ñoom bu dix heures incha allah te ñu demee dossier yu bëri dañ ko tekki taabal ji rawatina bii. Mhm, ñu ndax mën nañoo xam euh, en quelque sorte bu weesoo dossier bi lan moom mbébét euh, boobu lay waxtaan. a ah, programme bi état bi nar pour modernisation marché yi danañ ci ànd xam ngeen marché yu bëri temps yi amoon nekk na victime incendie loolu danañ ko tekki table ji waaye problème aussi danañ ko tekki table ji surtout lu jëm ci euh, dépat yi nga xam ne doon nañ ko. tudd jamono yële mu jëm ci suukar si keroog na fi coow am na yoo xam ne dañ ko waxtaan ñoom incha allah. balaa ñoo wax ci marché yi monsieur Dieng ndax jàpp ngeen ne ministère bi doon seen tutelle taxawaay gi mu waroon taxaw ànd ak yéen ci liggéey bi mu ngi koy def ndax sentir ngeen ne liggéey bi yemb na. waaw woote woote bu muy woote moom danañu ci boole rawatina moment bi ñuy préparer le mois du consommé local kooku moom réunion yi ko yi fi ñu participer ca mais euh, bërki dem aussi def suñu signature de convention ak benn structure ñoom ñëw nañ c'est vrai que ànd bi ñun ak ñoom rafet na waaye nag bu amee manquement buñ ko toogee ak ñoom duñ ko wax ci presse dañu toog ñu wax wax leen ko incha allah. ngeen signalé ko donc nga wax marché yi tout à l'heure tey jii euh, lan ngeen fas yéene euh, proposé pour ñu euh, taxaw ci marché yi nga xam ne saa su nekk da ngay dégg bi marché am na lakk-lakk bi marché am na lakk-lakk te it lii métti ci commercant yi lay jógee. waaw lakk-lakk yi amoon na ci marché surtout marché yi nekk à l'intérieur du pays mais ak Dakar aussi capitale mhm. lu ci mel ne Sandaga lu ci mel ne Petersen doon lakk-lakk yi mu bari na te ba léegi trouvé gu ñu saafara ñun demoon nañ ba trouvé police de. police d'assurance ak benn compagnie. Mhm. waaye am na fu mu yem foo xam ne dinañ ko yëgal ministre bi ba xool état bi nu ci mën a jàppee parce que police d'assurance su amoon bu lakk amee bu ñu defee constat assurance da lay d'accord loolu daal bokk na ci proposition yi. waaw bokk na ci dossier yi ñu war a toog ak moom incha allah ak ak cabinet tey ñu nekk ci jamonoy mbas ñu bëggoon a xam en tant que acteur économique nan ngeen di dundee euh, période bi mbas mu njëkk mi dékku woon nañ ko ba mu romb dañu am yaakaar far deuxième vague bi tàmbaliwaat donc lu metti la kenn xamul kañ lay jeex waaye nag seqoon nañoo nguur gi ci ay tegtal rawatina ministère du du plan et de la coopération et de l' ba ñu war a jàppale coopérative économique yi ci ay soutien ay appui mais surtout ci wàllu financement waaye ba léegi ñëwul kon ba fii ñuy wax ni soutien googu ngeen yaakaaroon ci état ak siwul. ñu ngi ci yaakaar ba léegi waaye jotaguñ ci benn dërëm. ba tey yaakaar baa ngi fi ndax tey jii mën nañ koo wax ñoo ngi laam-laamee ñaareelu vague tey ñoo ngi wax tamit ne suñu comme koom gën naa sooxe. ngeen ah mais bien mais bien sûr cest deuxième vague bi jigul kenn première vague bi yàq na lu bari deuxième vague bi suy tagoo day gën a garaaw. Mhm. waaye euh, du comme du ñun rek àdduna bi yëpp la mais teewul ñi ngi ñi ngi séntu ne dina am ay lendemain meilleur ñi nga am yaakaar daal. tey jii boo doon proposer pour su ko defee suñu dëkk mën a mënal boppam intérieurement laata muy xaar ay e koppar ci yeneen i réew eh, lan ngay proposer en tant qu'acteur économique. non koppar moom ay ay subvention lay war a doon mais li am importance mooy économie réew mi dafa war a yem ci production parce que li ñu consommer lu bëri bitim réew lay jógee donc dañu war a produire même di def ay industrie de transformation pour non seulement satisfaire réew mi soxla mais même di exporter bitim réew waaye li ñuy wax Seleka mi ngi nar a tàmbali te loolu marché africain la boo xam n nii produit concurrence produit yi fi fekk léegi nag su état bi jàppalewul produit yooyu dana métti trop te non seulement dañu war a jàppale produit a produit yooyu ñu jéggi sax dem ci yeneen réew alors kon ñu ngi yaakaar ne euh, Sénégal dana dem ba wàññi importation di produire di produire def production locaux ñu ngi ci mm-hmm. merci beaucoup monsieur Dieng. Alé Dieng ñu ngi lay bu baax.